asalaamaaleykum bokki jullit yi jot nañu ndigal ci xarit général kul murit Cheikh Sidil Maxtaar yàlla na fi yàgg Mbàkke te wér Cheikh Amadul Maxtaar may Cheikh Moustapha ñëw nag ci ki tàmm liggéeyal maamam yàgg jëfe ndigal te di ko boole kenn foo seen sëriñ Cheikh Aliou muy dem bu laajte ci liggéeyal sëriñ Tuubaa maamam la ne moo tax Mbàkke wax naa ko ni ko bul geestu kenn dëgg ma la sa maam ak Cheikh Moustapha mi ngay liggéeyal nit ñi ku leen geestu doo yegg waaye jógi nan mu jóg yokkaat ci li mu doon liggéeyal maamam te yàgg koo liggéey muy noo ngi jëm tukaar tukaar ci siin la bu siin ku ma ndoofeen moo seeraloon sëñ bamba maamam xadeer bu demee ci déeg tukki dafa ñibbi sëñ Cheikh Aliou bu delloo tukaar juróom-ñaar fukk tuub ba mu yeggee mu xeex tey ba jumaa am tukaar jumaa jooju ki yëkkati jumaa ji def ko ànd ko moom ah di sutu bur siin ku ma ndoofeen di aarona ku ma ndoofeen yàlla ko maamam fay ak sëriñ Touba waaye sëñ Cheikh Aliou ah dafa am nag fondation bu mu yàgg def lool ci kanam ak Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké maamam xam ngeen ni wax naa leen ko sëñ Cheikh yàgg naa dimbali ay nit ay handicapé mu jox leen ay néew ju doole dëkk yu lakk yëpp sëñ Cheikh Aliou def na ko waaye wéer ko sëñ Bamba maamam loolee mu doon def nag fondation boobu la beesalaat muy liggéey bii nu boo tax la 24 noo ngi jëm tukaar Alaaji Ablaay wax nga dëgg Toucar mi ngi nekk ci région de Fatick département de Fatick sous préfecture u Niakhar barab boobee nga xamante ni ci biir digg siin la ne waaye kat moo fa daan dem Serigne Aliou Mbacké mu Cheikh Mouhamadou Moustapha moom Cheikhul Khadim moo daan jóge Touba jaar Daaru Naim ñëw Bambey jóge foo war fas daal di wuti nag Toucar nekk ak su baax soo soosu nga xamante ni duñ daw duñ daay duñ dëpp ñëpp ànd ak moom bi mu fi bàyyi ko nag mu bàyyi fi doomam ju baax ji nga xamante ni keroog bi ko Cheikh yu Mbacké di jox juma euh, ndoxum maaw rahmati dama ni nee ko kóoluteef ji mu ko wóolu daa jiitu dikku jamonoom kon nag bu Arona Coumba Ndoffène Diouf di sëtu Buur Siin ni nag sax man sama rakk dafee ne muy euh, Arona muy muy Buur Siin mi ngi tuddee Buur Siin kon nag damaa bëgg ñu xam ni ku bokk siin te xam ni sunu maama jëloon manto ba tay ko ak suufu siin ni sëñ tubaa maa la seede te xam ni gelluwaar la gelluwaar goo nag tey ji moo jur gelluwaar yi tabax jumaa jooju ci digg tukaar kon nag dañuy ñaan taalibe yi le 24 ñu taxaw fa xam ne na mu ngi jëkk a woo Cheikh Mouhamadul Bachir moom Serigne Baara bàyyiwul nag ku yaakaar sëñ tubaa ak ku bokkal sëñ tubaa waaye daal nee na daal li gën a wér mooy képp koo xamante ni nee nga baax teg ca siin daal woo na la siin ndax siin la barab boo xamante ni nag dëxëñ gi fa sëñ Tuubaa dëxëñoon la fa ne moo tax arona commando fen Diouf tabax fa jumaa ju toll noonu ñu bëgg ko ubbi ajjuma jumaa jooju daal Ablaye yàlla ñu ko tàmbali ci bisimilah rahmaani rahim yàlla na ci alhamdulilahi rabbil alamin OXI nag mooy organisation Khadimal Moustapha pour la solidarité islamique mbooloo mi nga xam danoo ànd ngir yàlla liggéeyal Serigne Touba ci jullit yi waaye ci réew mi ci ñëpp mbooloo mi ngeen gis nag yàgg nañ fi 2000 atum 2000 ba léegi la Serigne Cheikh Aliou jiite waaye ban ko joxee yeneen liggéey dafa dem liggéey yooyu liggéey waaye ba mu daataan dem fekkoon na ñuy liggéey liggéey bi liggéey bi mooy lan consultation gratuite yàgg ngeen koo dégg gis ñu koy doxe waaye yàgg ngeen dis ay remise de dons ay pousse-pousse ay yére ak lu nekk ñuy wër réew mi di koy joxe waaye yemul foofu. xam ngeen rajo jant bi xam ngeen rajo caneer daara yi fi nekk xam ngeen école yi nga xam ne ubbi nañ ko muy école yi tubaab ak école yi daara yi alxuraan ci réew mi loolu la doon liggéey waaye ban ko xamee ni maam maamam ja daf koo joxoon liggéey ba nga xam ni moom la doon liggéey te yéen ñëpp ngeen xam ko daf nu fee bàyyi woon bàyyi fi ñii ñu di koy liggéeyal liggéeyal boobu moom mu nekk ca leneen ba mu ko liggéeyee ba liggéey boobu sotti ca na mu ko bëggee woon dellusiwaat na ak ñun looloo waral liggéey bii liggéey bii nag daf ko ànd ak Sénégal yépp jox ci ndigal képp kuy taalibeem képp kuy taalibeem ndax fukki région ak ñent yi ñu ngi fii kenn ku nekk am ko la représenté ci salle bii ñu nekk tey waaye yemu ca ndax àdduna bi kenn ku ci nekk ci diaspora bi ah, yónnee nga fi ndaw mu ngi fii taxaw kon ñépp takku nanu takku ci oxy bi nga xam ni moom laa leen waxoon sànq di organisation Khadimal Moustapha pour la solidarité islamique nekkul lu dul dimbale askan wi dimbale njaboot gi ci liggéeyu Serigne Touba bi ñoo ngi sant yàlla bu baax ci teewe gi nga xam ne teewe nañ ko bis bi muy loo xam ne réew mi yépp bàyyi nañu xel ne képp ku woote ci dimbalante woo réew mi ci loo xam ne réew mi laaj na ko tey ñu yëkkati kàddu nag. di ko tënk rek di woo képp koo xam ne ñu ngi doon ànd ak moom ci liggéeyal sëriñ bi nekk ci ginnaawam rawatina ñi nga xam ne dañoo nekkoon ak dañoo nekk ak sëriñ bi ci maa u rahmati fu ñu fi mën a nekk ci ay jaayante ci mbooloo yu fasantikoo moo xam ci diaspora bi moo xam ci biir réew mi ñoo ngi leen di woo ci liggéey bi nga xam ne sëriñ bi sumb na ko muy Oxy ñuy fas yéene kenn ku ne ci ñun na fexe ba gis ci boppam jàpp ne alala ma ndax réew mi soxla na fi mu nek ni li nga xam sëriñ bi sos nako muy dimbulenté ñoo ngi ci talal loxo ñepp di ci wo ñepp di ci xaar ñepp itam fasiyene ko and ñun ñepp ñu ko ak sëriñ bi ñuy ñaan liñ ciy dak muy ngërëmul yalla ak ngërëmul sëriñ bi yalla nañ ci jàmm lu kawé ndortul bépp julit su ngeen gisé jotaay bi da ngeen jambari ne jàmbaari cheikh mahamadul moustapha di jàmbaari cheikhul khadim di sëriñ cheikh mbakke mom sëñ aliou mo wote fële ci touba tukar Euh, ubbiteg juma joo xam ne wax dëgg yàlla euh, képp ku fa teew yàlla yàlla faj sa aajo ah, la waral euh, la waral bis ba nag mooy xam ngeen ne ak màggal la goo xam ne sëriñ bi da ko fay def waaye mu fi ubbiwaale jumaa yi tukaar te xam ngeen ne jumaa ja néegub la boo xam ne néegub yàlla la bu bu bu bu bara boobu laaj wax dëgg yàlla kenn ku nekk xam na ko te xam ngeen ne sëriñ wala ministre arène Coumba Ndoffène Diouf kenn ku nekk gis na ne taxawaay bu rafet ba mu ci taxawee nga xam ne ci 35 millions loolu ñëpp bàyyi xel ne Eh, lu am solo la ñuy ñaan yàlla ko Sëñ Tuubaa dugal ci ñaanam googu may wax ne wa xaqat yax waaye jël si na daamu fi xidmati wa ablahum maraamu eh, ñu ngi wax nag ne képp koo xam ne yaa ngi bokk ci Majmahun Nurayni ci biir réew mi ak ci bitim réew moo leen fédération bi li dàmbale ci Touba mi nga xam ne mooy sees bi te loo jiite ko ak mboolem fu mo honoré nek ñoo leen di wo ci bis bobu bis bi dal bisub sunu borom subhanahu wa taala la ah, bisub cheikhul khadim la waaye ñoo ngi ñaanal Serigne Cheikh yalla yag yalla nako yalla yalla taxaw di waxit comme ni ñepp ñëpp rek ci wote gi nga xamné mo ngi sunu kanam di la 24 di ci wo mbokk talibé yëpp rawatina fédération bi nga xamné ci lañu nek di juróom-ñaari fédération juróom-ñaari daaira yu dajé doon bokk ci fédération bi di section section Dakar ñu ngi ci woo ñëpp di ci jiital sëñ Ahmadou Cissé mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi di ci woo Baye Cheikh Cissé ak sëñ Babacar Ngom sëñ Modjouf Diagne sëñ Ablaye ture ñoo ñëpp ay jëwriñ lañ ci bopp yi nga xam ne ñooy bopp liggéey bi dañoo dañ ne nañ tudd jëwriñ yi su ko defee mbooloo yi dinañ ko yëg rawatina Dakar gi ñu nekk rawatina Géejawaay gañ dëkk di ci woyit soxna yi di ci jiital soxna Mati am soxna Awa Saw ñoo ngi leen di woo ci bis bi di leen gën a soññi xam bis bi bisu jaamu yàlla la bis bi bisu social la o fogole tukaar in way simnoo nuun na barke Serigne Touba in way ngoyo nuun no andoona yee te Serigne Cheikh Aliou Mbacké a fi'a chaque année ta fi'in a fi tournée a wida a wida tukaar fo ke widuna fop in way ngoya nag no ubbite juma vingt 24 mars na jumali nga tombe ka no ngoolo nge ne i ndefna in way ngoyo nag o fogole tukaar fop fo ke widuna sante ona a sin cheikh aliou mbake andona ye te fokat in na khadimul moustapha o te ref o buntu in no ten in way ngoyo fop nag fala neke nag in way leyano no jewrin in sin ablaye diouf andona ye te ref jewrin in na ɗatale serigne touba euh, comme tewe me nag mi na tewanan mi na leyanan in in way in way ngoyo fop fop fata madidno inchallah wekkitteɗen jumane ka yon ka fo a canga ke fat nu tewa nun fop hunan na keke nag andi ye o ten ref o let rof te ref o xoyof in way simno nun to to moƴo no moƴo beddele okkololene ko sirnoxe layna nun nu nananigo ka te wa touba a ngara ngo ka ngar pour a jangno nun taalibe mais ndiiki ka ngaro pour a jango nun na nun taalibe kon nag fat nu mbexeyo bo kene ba wat na nun fat nu ngogorloxo a paax to to to ndimle o recevoir gànnaaw bi paax a paax incha allah wasalaam. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi euh, gannaaw bu ñu nuyoo ñi fi teew ñëpp euh, ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp gannaaw bu ñu waxee li nga xam ne mooy Oxy ak li muy liggéey ñu xamal leen rek li nga xam ne noonu la liggéey noonu la liggéey bi tëddee maanaam euh, collecte bi ñu wax ne moom la ñuy def ci xeetu yére xeetu dàll. xeetu matériel bu jëm ci handicapé yi xeetu garab xeetu lépp dañ leen di xamal liggéey bi nu muy tëddee maanaam kër goo dem am na luñ fa lu fa nekk te jëfa soxlaatuñ ko wala jëfandikoo wuñ ko te loolee am na ñu ko soxla am na ñoo xam ne bu ñu leen ko joxee dinañ ko jëfandikoo ñuy ñaan képp kenn ku nekk fépp fu mu mën a nekk lépp loo xam ne mu nga ca këram mbaa mu nekk ci euh, goxam te soxlaatu ko mu dajale ko fexe ba oxy jot ci dinañ fexe ba ñi nga xam ne ñoo ko soxla wala ñoo ko yeyoo ñu ñu jot ci euh, ñuy woo sunu mbokki jigéen yi képp koo xam ne yaa ngi bokkoon oxy ñoo lay woo ne xamal leen ni liggéey bi tàmbaliwaat na ñu àndandoo takkuwaat jël delluwaat ci liggéey bi di leen xamal nit ni oxy ubbi na ay buntam képp koo xam ne dafa bëgg ànd ak ñun ci liggéey bi ubbi nañu bunt yi bu baax képp kenn ku nekk mën naa ñëw tàbbi ci mbooloo mi pour ñu ànd mën a liggéey di ñaan waa tukaar jigéeni tukaar xamal leen ni nañu takku te xaar eh, yeneen jigéen ñi ñëpp a ngi ñëw. ginnaaw ba nu santee suñu borom tabaraka wa taala noo ngi julli ci yonent bi muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di sant sëriñ Touba bu baax a baax di ziare eh, sëñ si di Moxtaar di ñaan yàlla mu eggale naa yi mu naadal sëñ tubaa mu eggale waale naal yi ñu ko jiitu woon te nu ànd ko ak moom di ziare. ñi jiital ñu ngànk torox yu Sénégal yëpp euh, bàyyiwuñu kenn euh, euh, di woote nag jëmee ci bis boo xam ne ñu ngi ko fas yéene amal ca Toucar Sine màggal gi ñu yàgg def goo xam ne l'an 2000 ba léegi ñu ngi koy def ak lig juma goo xam ne Serigne Mame Mor moom Serigne Moutada mooy jiite jullig juma ga juma ja nag dafa bokk ci liggéeyu oxy دي اورغانيزاسيون خادم المصطفى بولا سوليداريتي اسلاميك دي منظمه خادم المصطفى لتضامن الاسلامي مبوتاي جيغا خامنا دنجكو جاغل الخادم الرسول غير مونو مان تي كو تي ليغيال تي بيندي في ام دو ام خاجي اك سين داخ دافا واخون يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الولا يا هادي ان رضا لولينك لنو توب ان شاء الله داخ xam nañ ne Sénégal laaj nañ ko ndax dafa am ñaari extrême ñi dañoo am ba mu ëpp ñi ñàkk ba mu ëpp amoon nañu daan ne ci diggante bi waaye dafa mel ne ñaari yi dañ ko écrasé ba tax na aajowoo nañu ko ñu bëgg nag fa nga xam ne fa la amee ba xaw a ëpp ñu yóbbu ko fa mu manqué ñu mën koo mottali bu ko defee la Sëriñ Tuubaa waxoon wajaan saxiranaa yu waqirul kabir wayal kabirana yu aynu li saxir mm-hmm. bu amee rek jàmm am loolu mën naa rek àddina kon ña ëpple ba am lu ëpp man wañ ñi dugal ko jox ko ci ñi ñàkk bu ko defee jàmm dana am te loolu dafa war am dimbalante gu gu mel noonu kon lutte contre la pauvreté la mm-hmm. maanaam ak ñàkk ñàkk nag mm-hmm. dafa am ci mentalité ci xalaatin ñàkk du matériel rek dafa am ci xalaatin am ci matériel kon ñaari ñak yoy yep taxna ñu taxawal ñaari radio ngir ñuy yé doom adama yi ci xel ak ci njàngale ndax serigne touba dafa waxone inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqaa abdan khadiman wal muhayminu shahid jihatam yep moy jàng jàng xam-xam ak ragal yàlla jamu yàlla ragal yàlla kon doom adama bi xam la wara jital ci lépp kon lépp loo xam ne day jëm ci xamal doomu aadama yi seen lislaam xamal leen seen devoir ci réew mi euh, nga xam ne dañ mën a def seen devoir doog a réclamer seen i droit ñu xamal leen loolu ba pare boole ci ay ndimbal incha allahu euh, loolu mooy organisation Khadimou Sa pour la solidarité islamique euh, kon day mel ne manto boobee buur siin joxe woon seere ca seereem su màgg sax mm-hmm. dafa mel ne Euh, dafa doon euh, jina na lam jiwoon nag la ca sax mhm. jumaa la ca ka joxe jumaa ja di Aroona Coumba Ndoffène Diouf ñu ngi yàlla guddalu fanam tabaxal nañu fa jumaa ju rëy ci turu oxy mu ñàkk ca 35 millions fanweeri million ak juróom jumaa ju mucc ayib joojee jumaa nag lañ bëgg a daloo bu soobee yàlla ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weer wii nu nekk mois de mois de mars fas nañ yéene sëñ Maam Mor di suñu xarit di suñu wayjur di suñu wëllëre fas nañ yéene mooy jullee jumaa joojee moo koy jullee ajuma joojee boole koor nag ak jàng yenn fa daan def at mu ne mat na ren la ci fukki at ak juróom-ñaar tey duñ bàyyi tournée yi ñu fa daan def nu ànd ko ak waa Touba danañ mat ñaar fukki oto nangam def tournée foofa bu ñu paree ci suba sa bu ñu jàngee def loolu ba ci suba sa danañ tourné ci dëkk yañ daan dem yëpp dañ fa dem saafonteeg ñoom euh, incha allahu te loolu lépp nag Serigne Touba rek a tax nu koy def kon alhamdulilahi euh, màggal ga euh, ñi ngi ñaan ñëpp ñëw ca ñi ngi cey woo ñëpp di sant bu baax itam di ca woo Abdoulaye Daouda Diallo di nit ku baax di sunu xarit noo ngi ci noo ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko ko yëgal waaye danañ ko fa teewal incha allah waaye dañ ko koy yëgal ndax dañuy suñu xarit di suñu wëllëre kon noo ngi ci woo jullit yëpp di ci woo waa Kër Sëñ Tuubaa yëpp di ci woo tariixa yi yëpp yi nekk senegal di ci woo waa Sénégal yëpp ndax oxy ñooñu ñooñu ñëpp dafa fa nekkal. Mm-hmm. amul xejj ak seen. kon yal nañ cee yàlla yóbbu. ñu ngi ñaan ñi fi teew ñëpp suñu borom defal leen sutura. Mm-hmm. Euh, euh, may leen wér-gi-yaram mm-hmm. euh, wéral seen i cër. ba lañ bëgg a liggéey ci réew mi nga xam ne amuñu lu dul Sénégal kun dàq duñ dem feneen Sénégal la dem la yem nu am euh, kàttanu mën a liggéey sunum réew mën a jàpp ci liggéey bi te mën a gën a mën a dundal lislaam te ñu tëral ko ci liggéey ak jaamu yàlla ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lii sëñ Aliou bëggoon ci yow lépp sa maam ju baax ja bëggoon ko ci yow ak yoon wi def nga ko li am solo kay nun murit yépp nag ñu ñaanal sëñ Cheikh Aliou yàlla fi yàgg lool te wér dégguñu la ci lenn dajewuñu ak yow fenn dégguñu la nga woote lenn lu muy liggéeyal sa maam liggéeyal sëriñ Tuubaa nag ku ko def bu ëllëgee da añ faraasu la nu loolu yàq waaye ngóob ko weddi liggéey bii nga liggéey dem ba tukaar ca siin jumaa ji am fa aroona kumandoo fen def ko seen maam yu baax yéen bis ba ñu dajee woon te daaru daaru marnaan ajuma la 24 moo koy fay nag kon bu kenn manki sëñ Cheikh baywul kenn bayiwul fenn bayiwul ñenn ajuma la 24 ñu boole koog màggal ga sëñ bi nee na yéen ñëpp ngeen wuysu ko bu ngeen ñëwee ba noppi nag am na waxtaanu mag wuy waxtaan ci yéen ak yéen bu mu yéene dimbali jaam ak yéen bu mu yéene dimbali taalibe yi yàlla ko sëriñ Tuubaa sa maam saytul ba nga yeggale ko bis baa ngoog la 24 bu kenn manki